Assalamualaikum, am di jàmm yi assalamualaikum mbok juliti yi xarit yeeg soppe yi maa ngi nuyu ñep di jox ñep sama nuyo gu and ak dal ak ñek man bay jey fayde yi ma wona waxtan ak yeen pour rek leral gannaaw bi ma leen may wax ni. am na lu fi jot a xew ci réseaux sociaux yi ñu koy dégg ba ñenn ñi seen xol naqari mu fekk ni li ma wax ci biir face di diggante Modou Lo ak Balla Gaye ñuy ay jullit di ay taalibe am ku jël sama wax dagg ko ci ni mu ko neexee ak ni mu ko bëggee sànni ko ci réseaux sociaux yi ngir ñu déglu ko wala yàq doomu de deru doomu aadama te man mii dey defoon naa ni nit boo amee ndey am am baay am njaboot waroo xool benn doomu aadama boo am ndey am baay am njaboot ne xaaral ma tilimal deram jaxase ko aduna ta kuma xam-xam ni xawma dara lu ñaaw ci samay wax rusna wax lu ñaaw rusna wax wax ju tegginewul wax lun moy xébé bi ma ba fi ma tollu ni sañatuma ko de ta sañuma ko it ta xawma ko it sunu mam alaaji malik sunu mam cheikh bamba sunewa wasila lam man taalibe sëriñ babacar la waaye bo duggé sama kër alaji fallo nga fay dagu nga dugg sunu kër sëriñ babacar ngi fay dagu këru diiné yi nga xamné mam bay fi maam Baye Laye ngi fi Boukounte Ndiassane ngi fi mam Cheikh Madou Bamba ngi fi mam malik ngi fi ni sunu ay wasila di sunu ay kilifa di sunu ay sëriñ doomu aadama daal di ne xaaral jëmm ji kat lii mu wax ne xaaral ma xool li ma ci neex ma dagg ko monte ko sànni ko ci réseaux sociaux yi ngir tilimal deram ah waaw nit day dina fàtte ne bésu penc am na te dina am këru diine yépp awma fa fenn sens interdit ndax suñuy sëriñ ñu fa ne ak i suñuy xarit ak suñuy soppé kon nak li dong mo ma def vidéo bi ngir léral ndax dama né ñaari mbër yoy fofu ñu bok war na tax rek waru ñoo wax dara lu ñaaw ci lamb ji wayé nak ñi seen xel neneen lay déggé ñi seen dégg-dégg guddul aduna mo ni ñëpp matuñu moo tax ñu ngi jéggalu di baalu ci ñi nga xam ni sax dégg nañ la doomu aadama boobu def yàq samay wax tilimal ko salteel ko ba tax mu am ci sax ñoo xam ni xëy na seen xol naqari na waaye ku ma xam-xam ni xawma ma lu ñaaw xawma lu bon yar rek lañu ma xamé wax lu bax lañu ma xamé def lu rafet lañu ma xamé yene ñepp jamm lañu ma xamé lo tax sénégal sénégalais def ma seen xol li rek nak mo taxoon ma ni def vidéo bi ngir léral ni dégg sax wax ji te wuñu lépp kon alaykum wa rahmatullah taala wa barakatuh vive notre pays de la teranga le Sénégal dëkku teranga dëkku yërmande dëkku jàmm man Mbaye Dieye Faye maa leen doon nuyu waxtaan ak yéen ci li fi jote xew pour wax leen ni rek loolu daal du man déedéet déedéet jërëjëf.